bi benn cas importé bàyyi ko fële ci ay bédé am ñeen fukk ak juróom nekk ay cas communautaire fanweeri doomi aadama ak juróom ñu ci weer ba dellu seen mbokk fukk ak juróom ñaar nekk ay cas grave yoo xamante ne jamono ji ñoo nekk euh, réanimation ñi xam le nag kenn ñàkk ci bakkenam bi mbas mi ganesee ci réew mi di ñaari fan ci war mars ba léegi Sénégal jamono ji am na tool ci fukki junne ak juróom-ñaar ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay cas ci ñoom fukki junne ak juróom-benn ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ñoo ci wér ba dellu ci seen mbokk ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo ci faatu juróom-benn téeméer ak fanweer ak benn jamono ji ñooy wéy seen faj te di ci lal hôpitaux yi mu nekkoon euh, situation du jour euh, bésu tey bi ah, ci mbas mi la ñuy wax euh, ba tey fële ca Almadina ak centre bu Dakar la ñu lool li nga xamante ne moom ay opération yoo xamante ne nag takk der yi ñoo ko fa daal di amaloon ngir fexe rek veillé ci mesure yi nga xamante ne jëwriñ ji ñu dénk wàllu bi réew fi ci Sénégal di Antoine Félix Diome daal dina koy teg bokk na ci dàq rassemblement ak lépp loo xamante ne dafay ndigal di ay solum masque ak naka noonu ñu daal di koy digle mu nekk nag si jamono joo xamante ne ñoo ngi nekk si ñaareelu vague ak ay nouvelle contamination yu yees fukk ak ñaar ñoo daal di faatu ci juróom-ñaari fan yu ñu génn dong ñu xam ne nag fii ci réew mi yooyee euh, opération tax na sax ci guddi fukki fan ak benn jàpp fukki fan ak ñaar takk der yi fale fale ca brigade des mœurs euh, nekk ci commissariat central bu Dakar daal di nag dugg ci ay boîte de nuit daal di génn fexe li nga xamante ne moom la fi jëriñ ji daal di teg dem sax ba ci dugg ci yenn restaurant yi di xool ndax jëfe nañ ndigal li nga xamante ne nag jëriñ ji daal dina ko fi teg marathon budgétaire daal dinay jeex fale ca diwaanu assemblée nationale ñuy xamle boobee marathon daal dinay am ay jafe-jafe yu metti bokk na nag ci génn àdduna ki moom mooy député bi di Marie-Louise Diouf Covid 19 daal di koy faat ak yeneen i cas de contamination ñoo xamante ne nemmeeku nañ ko ca boobu bërëb ñuy xamle foofu ca diwaanu assemblée ki nga xamante ne moom mooy vice premier président di Abdou Mbow daal dinay xamle loolee maraton budgétaire bi nag ñu tàmbali woon ko ñetti fan ci weeru novembre atum 2020 mu daal dee jeex ni ki demb ci samedi bi ñuy xamle mu ngi jeexee nag ci vote budget jëwriñ ji ñu dénk wàllu xëy mi ak ki nga xamante ne nag moom mooy yor lépp lu jëm ci wàllu finance ak budget li Abdoulaye Daouda Diallo di fanweeri fan ak juróom-ñeent assemblée nationale daal dinay saytu lu toll ci fanweer ak ñett ci ay ministre yoo xamante ne daal dinañ fay jaar ak juróom-ñetti institution de la république yoo xamante ne jaar nañu foofee ca péncum ndaw réew mi ca jaww bambali la ñuy dem ni ki démb nag ak lakk gu metti lañ fa daal di eh, nemmeeku ci samedi bi ñuy xam ne nag jaww bambali mu ngi nekk nag ci département bu Mbirkilane askan ba fa nekk nag jamono ji ñu ngi jooy di wootee wallu di xam le boobee lakk nag fukki père de famille daal dinañ ci loru tamit lu toll ci juróom benn fukki tonne yoo xamante ne ay dugub la loo xamante ne tamit daal dinay takk ba jeex jamono ji nag mënuñu wax benn yoon lan moo sookee boobee lakk opération la ñu amaloon ni am solo fële nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Touba ñu xamle juróom fukki doomu aadama juróom-ñaar daal dinañ leen teg loxo fële nga xamante ne moom mooy ca département bu Mbacké ci 24 heures donc mu nekk opération yoo xamante ne dañ koy def ngir xeex lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllum banditisme foofee ca département bu Mbacké di xam ne ay woto yoo xamante ne seen lim mi ngi toll ci juróom yu ñu yóbbu fourrière waaye tamit fukk ak ñett ci ay moto tamit naka noonu ca Touba tamit ñuy xam ne ci alxames bi yooyu opération tamit daal dinañ ko fay amal ba ay 15 heures jotee jàpp vingt heures ñuy xamle fanweer ak juróom-ñeent ci ay doome aadama la ñu loxo lu toll ci téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci ay woto ñu daal di koy contrôler teg si tamit yëkkati amande bu toll ci ñeent fukk junni daa koy amande képp koo xamante ne daal di ngay jalgati yoon. wàllum piratage ci kër gi nga xamante ne nag moom mooy Ecobank ñu ngi xamle nag daal di nañ fay sàccaati ay xaalis yu takk yi nga xamante ne moom mooy ci Ecobank ñu xamle du ñu ne guleet ndaxte weeru mars atum 2019 benn étudiant ta sàccoon na fa nag lu tollu ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñetti ci ay millions ca gannaaw ba nekk lañ ko daal di teg loxo décembre 2020 ñu xamle ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñetti millions ak lu teg tamit daal dinañ ko fay sàcc bokku na ci ab trio maanaam ñetti doomi aadama kenn ki mu ngi dëkk fa li nga xamante ne moom mooy ca réewum Portugal kenn ki nag nekk cofondateur bu Dakar Direct keneen ki nekk patron bu Pacha Kébé ñu daal di leen a teg loxo ci sàcc goo xamante ne amoon na ci kër googu yi nga xamante ne moom mooy Ecobank hommage bu ñu jagleel ki nga xamante ne moom mooy Pape Bouba Diop fële nga xamante ne moom mooy ci Lens Montpellier ñuy xamle nag loolee mu ngi xewoon ci avant match Lens Montpellier quatorzième journée bu Ligue 1 daal di am ci samedi bi nag ñuy xamle nañu ko defee nag daal di rafet lool ay video lañu ñu fësal ci li nga xamante ne moom mooy écran géant ci stade bi di ci wane nag ay nataalu ki Bouba Diop moom moom mi nga xamante ne nag jaaroon na ci club Lensois boobu atum 2002 ak 2004 def fa nag lu tollu juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay match dugal fa nag lu toll ci juróom-ñett fukki poñ coupe du monde atum 2022 fas yéene am ca réew ma nga xamante ne moom mooy Qatar ñuy xamle communauté LGBT maanaam ñi nga xamante ne ñoom la ñuy woowee lesbienne gay bisexuel transgenre ñoo ñooñee nag euh, ñu fas yéene rek autorisé leen ñu assister ci bépp marché boo xamante ne dafa fas yéene am jëm ci yooyee jongante am nag moom mi nga xamante moom mooy ko réew moom mooy gi nga xamante ne moom mooy FIFA dafa teg ay règle loolu tax ba réewum Qatar ne fas yéene naa nga xamante ne FIFA daal dina koy teg nangul ñi ne ñoom ñooy LGBT yi loolee nga xamante ne moom mooy seen ay drapeau di feeñ ci stade bi waaye tamit ñuy ñëw di seetaan si ay match comme ni ko ñëpp di defee direction bu coupe du monde di xamle nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy communauté LGBT mën nañoo ñëw eh, di amal seen i marche te kenn nag du leen déranger foofee nga xamante ne moom mooy ci réewum Qatar. ca Maroc la ñuy dem ci biir semaine bi nag di àllarba benn doomu Sénégal lañ fa daal di faatoon bu doon wuyoo ci turu Ikania eh, dëkk nag fa li nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Tambacounda ne moom foofee ca Maroc di daan doole ñu daal di koy faat ñi ñuy xamle dañ ko daal di mettital ba noppi daal di koy faat ñi amal li ni mel nag du nenn dul ay doomu Sénégal eh, comme moom ki nga xamante ne moom lañ jot ne moom moo ko daal di rek daal di daw ñu ngi koy wër feebar jamono ji di xam ne nag juróom laale ci moom mbir tamit daal di leen teg ñoom ñooñu ñëpp nekk ay doomu Sénégal police bu Maroc di nay tijji ab enquête jëm ci moom mbir ci bitim réew ba tey dañuy dem fa li nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Ghana ay ne ni meeku woon nañ ko fa ca àllarba ba résultat yi daal di génn ki nga xamante moom mooy John Dramani Mahama moom moomee nag daal di jël ñaareelu place bi ci ki nga xamante moom mooy Nana Akofo Addo moom moomee nag daal di am 51 virgule 59 pour cent commission électorale bu Ghana daal di koy jox li nga xamante ne moom mooy raw gàddu gi ca alxames ba dañu xëy ki nga xamante ne moom mooy John Dramani Mahama daal di rek contesté yooyu résultat di xam xamle dañu daal di rek sàcc élection yi daal di nangu li nga xamante ne moom mooy victoire bi ci moom mu nekk nag ay fee yoo xamante ne amoon na ci biir semaine bi fa li nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Ghana beneen lakk bu metti boo xamante amoon na ci biir semaine semaine bi fa li nga xamante ne moom mooy ca réewum Espagne ca capitale ba di Barcelone Badalona nekk nag ab ville boo xamante ne ci ay boori 21h benn entrepôt bu ay migrants nekkoon nag lu leen lim mu ngi toll woon ci ñaari téeméer ñoom ñooñee nag ak lakk lañ fa daal di nemmeeku ba tax na sax am na ñu ci ñàkk seen bakkan ñuy xamle nag bu ñu sukkandikoo ci ONG Horizon Sans Frontières ki nga xamante ne moom mooy Babacar Seye di xamle bilan provisoire bi mën nañu jot rek ni ñeenti doomu Sénégal lakk ci am ci benn immeuble boo xamante ne rek dañ ko fa daal di kenn dëkkatul woon ci boobee immeuble ay migrant nag daal fay eh, dëkk boobee lakk nag ki nga xamante ne moom mooy meeru dëkk ba mu gée ba mu amee daal dinay nag yëkkati ay kàddu eh, teg yoo xamante ne nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moom mooy ba eh, Boubacar Seye yooyee kàddu ba tax na sax ko boobee maire di Xavier racisme total la ki nga xamante ne moom mooy maire ba di Xavier Garcia Albiol daal di fësal ba boobee lakk daal di am enquête ba nag mu ngay wéy ngir ñu xam rek bilan carrément ci ña fa faatu naka la toll. ca France la ñuy dem ki nga xamante ne moom mooy Thibaut Garagnon moom moomii ay tam toll ci ñaar fukk ak ñeent dafa daal rek faatoon ay doomu Sénégal ci ak lakk goo xamante ne ab rek la taaloon juróom-ñetti doomi aadama daal di si ñàkk seen bakkan bokk na ci ñeenti doomu Sénégal yoo xamante ne ñoo benn famille fee yi mu ngi xewoon weeru septembre atum 2015 ñu xamle moom Thibaut Garagnon moom moomee cour d'assises bu France daal dina koy nag daan ñaar fukki atu kaso yoo xamante ne da koy tëdd mu nekkoon loo xamante ne nag fasoon na lool ci biir semaine bi fëskee ne ko rek tëjee fële ca États-Unis d'Amérique li nga xamante ne moom mooy campagne de vaccination jëm ci feebaru mbas mi daal dinay tàmbali ci altine bi ñu dëgmal fëskee ne rek tàmbali njortu nañ ne dinañ jot loo bu njëkk ci ay vaccin foofee nga xamante ne moom mooy ci États-Unis tàmbali ko tam ba fépp fu doomu Amérique daal di nekk mën a jot nag ci yooyu vaccin ñu daal di koy rek wasaare ci réew mu nekk nag ay kaddu yoo xamante ne général Guy Perna daal dina koy fësal moom moomee nga moom moo jiite opération Warp Speed di nga xamante ne nag eh, dañ ko taxawal ci réewum États-Unis ngir fexe rek ba lépp loo xamante ne dafa jëm ci campagne vaccination yooyu daal di am eh, ca na mu waxee. jërë ngeen jëf mbokk yi mu nekkoon seen débriefing de la semaine manaam lépp li nga xamante ne dafay actualité eh, di fait marquant ci biir semaine bi ñu la ko doon dégtal ci biir Leral TV ak leexal point net di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ngeen wéy di suivre programme yi Leral.